yéen waa Ziguinchor yéen waa Ziguinchor yéen waa Ziguinchor da ngeen di jàppale président aussi restaurant yaa ngi yii restaurant yaa ngi lii ay station ndox la yoo xam ne nii ku añ ba pare moom ngay naan waaye léegi nag da ngeen ñuy dimbale ngir yàlla da ngeen dimbale pro nag parce que nag bëgg na defar nag waaye nag ndimbal dañu fekk loxo borom muusi ndox ndox restaurant yi ndox ngeen di jaay ngir du mu wala ab wala ak suñ añé ba paré na ndox ngén tek ko né su ngén ko tégué fé auto mbari su ñëwee jël ko way xam nga ni caniveau yi ni yépp ay musi ndox naan la ah li met na té biñ ko défé mudu 6 mois ah zéen sor wuy ma ni mën nañu fekk loxol borom jappal leen seen doom ñi nak bëgg ñeen dimbal way na dañ koy jappal yeen tamit li métti la wal leen li ah wal leen li ay musi ndox la di waaw waxal mam jaara ah ba jamonoy neex. de ah. seen bisan day dugg de de yi. di dugg de de kër yi. de de di visiter ndaal de de la di dugg ci de de yi. dëgg la de dugg ci biir waañ de ci biir restaurant yi. de tudo di vérifier nag de jaay war na jaay. de kii jaay na warul de tudo saytu yaramam. ba de ne yaramam war na de de warul toog. mais de service d'hygiène léegi pour de gis ko. Mhm. c'est très de loolu dëgg la moom. de service d'hygiène di wàccaa de le terrain. Mhm. di xool population yi parce que loolu ñoom seen cër la. jox leen moyen. waaw li Macky Sall jox leen ay moyens. yu ñu mën a kooku moom Mame Diarra kooku moom c'est un président irresponsable. kooku nga tudd moom c'est un président. bu njëkk. bu njëkk.